ci yéene kay ak Mamadou Mouhamed Ndiaye jërë ngeen jëf ndaamal la ca kajoor ndaamal kajoor borom doxagul di Idrissa Seck xëytina ci Macky sàll ak waa këram yëral xatu njëkko populaire ca radio France Internationale di RFI fa la Idrissa Seck waxey wax jagleel ko Macky Sall ak nguuram nee na la ñu doon toppee Abdoulaye Wade la ñu doon ŋàññ Abdoulaye wadd li ñu doon sikkee Abdoulaye wadd mbub la mu Abdoulaye Wade summi rek Macky Sall sol ko ne bañ na ko ba réew meeg ni muy doxe loo ci déggul fay da nga ca dégg Sall lii waral askanu Sénégal tudde leen dynastie Faye Sall Idrissa Seck ca waxtaan waak tubaab bi RFI dem sax bay xam ne Macky Sall li nga xamante ji askanu Sénégal jàngal nañu ko Abdoulaye Wade nay leçon ci élection présidentielle yi ba tax ñu falan moo ko nguuram indi Macky Sall Macky Sall wa te bu moytuwul li fi jële Abdoulaye a jële moom Macky Sall Macky Sall keneen ku xëy ci mbiram di directeur de cabinet adjoint ba woon mu di mu barakloo économiste bi moo xëy amee xët u njëkk journal bi ba ñu ko laajee ndax yaa ngi dégg Macky Sall la mu leen wax moo di dégg lu ma ko dara te soxlaw ma ko dégg mu barakloo ne waawal dëgg-dëgg dayob APR ca la xamee APR lan tekki ci wàllu politique ne bu ñu sàgganul sax du ko ca amee élection locale yooyu liste sub xalifa général lu murit yi observateur nañu mbira nga ca ne liste boobee waa Sénat di commission électorale nationale autonome li ñu bëgg moo di ñu wàccoo caak wàllu parité te liste ba amul parité professeur Abdoulaye Dieye nañu ci observateur yëf ba mu demee noonee waa Sénat mënoon nañoo dem kalaame ji yëf ca cour nañu waa commission électorale nationale autonome ña nga koy jébaane a wàccoo gi ndax ñu jege xalifa bi li ñuy wax moo di Touba dëkk la boo xam ne li l'islam santaane la fay doxalee kon mu la yamale góor ak jigéen yéenekaay bi nañu lii taxoon na ci li tax xalifa général Mouride bëggoon ñu jox statut spécial diwaanu Touba ndax lu mel ni la doon bañ listam boobee nag populaire nee nañu ñu jege xalifa bi lañu wax wax moo di Serigne Cheikh Sidil Mokhtar Mbacke du ci dindi wérgéel enquête dina kay nañu locali ren moo bari jafe-jafe yu ci am ne ci diwaanu Touba liste invalide la diwaanu Ogo coow laa nga ne fa kur boole ca ki boo xamante ne ji Macky Sall moo ko defoon ñu dem songi ko ca Cour suprême ak leneen loole journal bi di enquête gis na ko ci mu di budget 10 milliards bi nga xam ne moom la soxla ngir doxalu élection yéen bi dañu am na lu Mar day daw Abdoulaye Wade ne da koo yoreel xaalis Cheikh weddi na ko ba mu set wecc ci direct info ñu fekk ko ci xët mu njëkku libération mu leeral fa dëgg-dëgg la ca am Cheikh Amar ne xibaar boobee moom ñëpp ñoo ko yëgandoo te ba mu ko yëgee Cheikh Notala mi mu woo téléphone waxtaan ci ak moom mën na koo dëggal Cheikh ne dafa bëgg am réewum noppi na ngir faatu ngir am réewum te it kii di Macky Sall diggam ak moom ñu weggante lañu amuñu benn jafe-jafe cër ba mu joxoon Abdoulaye Wade ba muy jiite réew mi cër boobee la jox ki nga xam ne moo di Macky Sall ba muy dem ci rëbës di seeti Karim Wade moom Cheikh Amar mu ne làqatuwul benn yoon te it bataaxal bi nga xam ne Abdoulaye Wade joxoon na ko ko ngir mu jox ko Macky Sall jox na ko ko def na ko ko Abdoulaye Wade sante woon te kenn yëgu ko ko Cheikh Amar ne loolee ba mu koy def Sénégal a ko ñor jàmmi Sénégal a ko ñor liggéeyal Sénégal a ko ñor journaliste libération yi laaj ko ne ko ñiy def loolee jug di yàq sab der di la bindal lu amul di la sosal lan moo tax Cheikh ne loolee xam naa ñi koy def te dara taxul ñu koy def lu dul bëgg ma santaas dañu la a xam ma sama xaalis maa ko moom maa koy jox ku ma bombardier B52 mbëru mbuur mi moom la sunu làmbu xëyee yéen a kaay bi dañu bombardier ma déggoon roi des arènes te gëj koo dégg boobaak léegi toll na ci fukki at ndombal tànkam loolee la war a dem ngir jëliwaat ko ci Balla Gaye 2 mission commando la Balla Gaye 1 mi tàggat triple S doomi double S ci mu di Balla Gaye 2 nañu ci xët mu njëkk sunu làmbo Balla Gaye 2 mbër mënu ko yëngal ñoom bombardier tiitalu leen ndax Balla kenn du moom